asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mardi 21 janvier 2020 ñu ñëw ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la xëy doore ko yëglikaay bi nag dafa ñëw ci diggante ki nga xam ne nii moo di rëg-rëg ak tafaatin ak coow li doxoon seen diggante ca fan yi la ñu génn ca stadium Iba maar Diop mu mel ni kii nag coow loola ba tey jeexagul ndax ka nga xam ne nag moo yore tafaatin di ko mënaat se di mbay cuun moom mu nga xëy di wax mbay cuun nag ka muy waxal du kenn ku dul rëg-rëg ne na ko na xam boppam day xam lekkam tafaatin du moromam tey suba waxi noppi nee na tafaatin rëg-rëg deful lu tax mu médité sax naan day daje ak moom kon na dem liggéeyaati ba ca kanam kanam loolu nag waxi mbay cuuna jëmale ko ci rëg-rëg mu mel ni ab tontu la ci coow la nga xam ne doxoon na seen diggante ñu ne ko kon léegi mbay luy seen pexe mu ne pexe mi mel na dong la te leer na sénégalais yépp mooy diggante tafaatin ak ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 wala Gris Bordeaux wala Lac de Guiers numéro 2 wala Bombardier mbaa Eumeu Sène waaye nee na bu dul moom rëg-rëg moom bu wax ay ay waxam loolu waxi mbay cuuna nee na daal moom mbër yooyu mu lim la ñu ciblé ñooy seen adversaire ñoom la ñu a dajeel ñaar ñoo xam ne moom ciblenteen ba pare maanaam ku nekk tànn nga sa moroom muy diggante Papa Sow ak Siteu Fabrice Alous nag mu nga cay joxe xalaatam nee na li leer ba leer daal boo bëggee dégg-dégg moom ñoom ñaari mbër yi daal ay bërekat la waaye jàpp na ne bu dee Siteu moom ci côté ni mu nekk xale ak yu mel noonu mën na ko avantage waaye Papa Sow nag am na ay hypercute yu doy doy waar te itam am na expérience wu làmb combat booba wax ca la nga xam ne ni moom la ca xalaat en tant que technicien wala ab entraîneur mu mel ni ki nag moom Papa Sow mooma écrit ba mu jóge moom ña ca jóge bari na te ña ca jóge bañ ca jógee boo bëggee dégg moom fa ñu mujje neexu leen ci wàllum làmb yëglikaay bee ko wax nag du samay wax moo xam Balla Diouf la Boy Naar Zallo Rock Mbalax maanaam daal ba ñu wanee écrit ba ginnaaw moom la ca topp ci ñoom maanaam carrière ba neexatul ay defet la ñu mujje sunu làmb nag moo xëy def boobu jàngat ñëw ci du samay wax la waaye leneen loo xam ne nii itam am na muy diggante France ak Leket Baara mu mel ne kii nag yëglekaay bi ne Jamaïcain daal taxawal na combat boo xam ne ca Gambie boo fa demee moo fay Modou Lo ak Balla gay maanaam ñaari mbër yooyu dayo bu toll noonu am nañ ko ci wàllum daal fa ñu toll ca Gambia maanaam daal ñoom lañ tuddee boog Estari Gambie mu mel ni kon daal loola moom jama fa jaar def ko yëglikaay bi ñëw na ci keneen koo xam ne moom bëree la bëgg magam nekkoon mbër muy rakki basoka di gàdd gàdd ture daal nee na leer ba leer daal fi mu nekk nii dafa bëgg ñëw nag ndakaaru xamante ak gars yi fi ne bëre daal la gàdd ne fi nekk nii mooy li nga xam ne nii moom moo di li mu bëgg yëglikaay bi ñëw na ci waaye bu ñu demee ba tey ca Leewtoo TV lañ fay fekk mooy vidéo boo xam ne daal bu daw a daw yaram la di ay témoignage maanaam ay baati seede yoo xam ne jël nañ ko démb géejawaay ca kër Aziz Ndiaye ay nit yoo xam ne wax nañu la ñu xamoon ca maam Binta muy suñu papa Bekaay Mbaye ak ñoom Balla Gaye numéro 2 ñeneen ak ñeneen ñoom jawak ku nekk daal joxe nga ca sa kàddu mu mel ni ki daal maan baax moom lu ko waay jënde jar na ko loola vidéo tam mu nga fa nga xam ne nii moom moo di ca Leewtoo TV waaye bu nu ñëwee tamit ci lamb ji nga xam ne nii daal moom moo di lambi simple ji mu mel ni kii nag lambi simple ji moom la amoon dimanche passé ca terrain gaal gi daa mel ni amateur aw naqar lañ ca am ba seetaanuñu final ba nga xam ne moo doon dox ci diggante góor a sok ak ki nga xam ne nii moo di assurance ndax nag leen naqari mooy dañoo jàpp ni góor a sok dañ koo daan ca quart de finale ya maanaam daal mu dem vaar ñu jox ko ndamam loolu nag moo naqari gaay ba nga xam ne daal ba mu finaaloo ñu bàyyi leen fa ñibbi dem seenu yoon loola la gaa yi nga xam ne nii ñoo doon seetaan làmb ja jëf ju mel noona la ñu def kara fa nga xam ne nii moom moo doon ca terrain gaal gi yëglikaay bi ñëw na ci waaye ñëw na ci sëñ Modou Niang tamit ak dimanche ji nu génne dem nga nga xam ne demoon na ko ca bari ñi waaye Modou Lo itam ñu ngi ñuy xam daal moom mu nga fa nga xam ne nii nag moo di ca réewum Espagne di préparer li nga xam ne nii moom moo di boppam yëglikaay bi moo xëy tey ñëw ci mu mel ne kii daal yàgg fi mu nekk nii ah daa mel ni gaa yi moom ku ne yaa ngi wut ab ruq boo mën a préparer woo ngir sa combat nga man koo daan waaye boo bëggee dégg dégg moom jàppal lii ma lay wax fan yu tuuti di nga fi dégg ay combat yu mag a mag yu taxaw am naa ci yaakaar maar. mbokk waa Leewtoo TV ñu lay nuyu leen gërëm leen sant si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar lay nuyu. maa lay fay Ndeye Coumba Fall di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ko ñaanal ñuy suivre ñëpp ci Leewtoo TV ah di leen wax ne tey moom ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. loolu am na solo Babacar ni ñëw nag ak sunu laam sunu laam dafa xëy dala ki nga xam ne mooy may cuun di manager euh, Tafatine moom daal lu ma gis daal nee na euh, rëg-rëg bi nga xam ne day topp si ginnaaw tafaatin guddeeg bëccëg suba ngoon nee na daal nekkul euh, loo xam ne moom mooy moromam na na seeti leneen te bàyyi Tafatine mu dox doxam waaw loolu de moom Mbaye Thioune moo xëy tey wax ko waaw muy loo xam ne nii daal wax la joo xam ne nii ñu ngi ko fekk ci yëglikaay bi di sunu làmb mbay Thioune nag moom moo yor Tapha Tine ci wàllu management ko engagé waaw làmb nag baaxoo que ni tey mbër mu ndaw moom wala mbër mi jàpp ne moom yeggagul fii fu mu fekk mbër yu mag yi indi leen jafe-jafe bu liggéey ba yaakaar ne moom niveau mi yegg na fenn fi xëy na Reug Reug foofu la toll tey moo tax mu tënk Tapha Tine Mbaye Thioune na moom na toog noppal boppam ndax Tapha Tine bëriwul ak moom tey suba waxee noppi maanaam cité ay adversaire Tapha Tine ay Balla Gaye ay Bombardier Gris Bordeaux Lac 2 ñooñu la cité yaa ngi dégg waaye ñooñu tamit ñoo Tapha Tine defe naa jaadu na ndax ku dugg foofu daan Bombardier defe naa ne Balla Gaye 2 daan la fa soo bëree waat ak Balla revanche day jaadu soo bëree Gris Bordeaux combat jànq day jaadu soo bëree waat ak ak Bombardier revanche itam day jaadu yaa ngi dégg parce loolu tamit lu xel mën a nangu la waaye itam xel itam mën naa nangu nekk xale yi nga xam ne ni tey dafa am lu ñu def ba tax ñu topp leen ñoom mag ñi ah nañu leen bàyyi xel naa na ko ne naa ko xale naram Boy Niang mu ngi ci ginnaaw Balla topp ci ka nga xam ne mooy rëg-rëg tamit gis nañ keroog ni mu sëkkatale Tapha mel ni kon làmb nag mooy def noonu maanaam desini bu ñu passé bu ne day am yeneen champion yoo xam ne dañuy fëllaat te ñooñu bala ñoo toog ñoom dañuy fas yéene dem ca kaw te bu ñuy dem ci kaw nag ñu fekk ca kaw la ñuy jaar ci seen kaw pour jàll toog ca kaw. Euh, mi ngi euh, dalal ki nga xam ne mooy Fabri euh, Fabrice Alouche ben nekk technicien spécialiste sport de combat moom na mi ngi wax si combat Papa Sow Siteu nee na daal na Siteu moytu bu baax a baax a crochet yi ak dóor yi nga xam ni coup de yoo xam ni Papa Sow moom la yor Babacar. Aliou sama xarit maa ngi koy nuyu ah, ah, Fabrice Alouche mais c'est sûr jox ma sama ay daal alus. Babacar doo a dóor. non fa non alus moo ne ma jógee na France indil ma ay daal man ak Lamine te boobu ba tey gisuma daal yi moo tax ma ko koy laajaat Fabrice mais Césir man ak Lamine jox ñu ko wala non deux paires de Césir ah jox ñu ko mais nag li am solo mooy loolu mu wax tamit jar na bàyyi xel Papa Sow moom wax dëgg yàlla mbër la bi nga xam ne nii tey ci wàllum làmb amatul luñ ko ci luñ naan mënu ko ci pour man wala lam cay tële du bëri moo xam xeex la moo xam bëre la. yaa ngi dégg parce que tey bokk na ci mbëri ëpp ay victoire ci làmb ji kon ça veut que te Siteu mi muy bëril tam nangul na ko loolu kere ci jataay bi nangu na xam-xamam nangu na lim ko estimé par rapport ak sportivité am ak yu yooyu kon loolu Alou Sou wax defe naa ne Siteu ma muy daje sax moo ko njëkk a wax waaye itam te tekkiwul ka ni loolu yëpp bu dajee Siteu day ñëw taxaw wala Siteu amul argument Siteu am nay argument parce que mooy xale si yaa ngi dégg te itam at yi mu dese ci làmb Papa Sow desul at yu dool noonu ci làmb kon bu ko defee nag jàppal ni ñoom ñaar ñëpp ku ci ne ah mën ngaa def sa moroom lu ko bett bett bett parce que si te itam nga koy gis noonu tëlewul bëre te it am na am na encadrement te it ci li ma gis mooy ñi koy encadré muy père Max ak ñoom père Aline Diop ak ñoom seex Niang président écurie Lamsar bàyyi na leen xel bu baax a baax loolu nag su dajee ah yaakaar naa ne moog Papa daal combat ngay gis Babacar tamit journal bi def na benn taxaw jàngat nee na ginnaaw euh, Balla Diouf Boy Niang Zallo Rock Mbala ñi nga xam ne bu nu génnee face dañoo am défaite est-ce que tamit loolu tamit musiba boobu bu tuddee ko malédiction est-ce que tamit du dal ki nga xam ne mooy Papa Sow ginnaaw bu mu génnee face est-ce que ndamam bi combat bi mu jëm ak Siteu est dina si am ndam. ah waaw loolu moom yàlla xam nga am na loo xam ne moom sunu borom a koy man a xam. waru suñu papa El koy nuyu di ko ziar su waxee ba pare boo ko laajee danaan la yàlla daal xam waaye am na loo xam ne nag moom comme combat la buy ñëw te egseegul mënuñoo xam ndax papa génn bi mu génn phase ndax loolu da cey jële ndam wala da cey borom bee xam waaye nag loolu mu def jàngat jar na taxaw seetlu ka ni muy Rock Mbalax muy muy Balla Diouf wala Boy Naar ku ci ne ba nga génnee cri bi la des ci sa surtout carrière neexul effectivement ñooñu loolu dal na leen yaa ngi dégg parce que tamit ak lu mënti xew rek am na loo xam ne nii maanaam yàlla moo koy def phase moom yaakaar naa ne ci lii loolu Sénégal yëpp am nañ def nañ constat boobu que ni mën nañ encadrer athlète loolu moom am nañ expérience boobu parce que lu tax mooy écrit bu yàgg existé la boo xoolee écrit voilà et puis dañuy am plan de carrière pour mbëri écrit yi mu maasee loon yëpp ci làmb boo xoolee ñu ci bëri écrit yooyu parce que da nga naan kii kii déggatoo leen moo xam ay écrit séréer la écrit njàmbur ay écrit mermous xëy na tey Fass moo fi des ak écrit waalo ba tey di exister di produire ay champion mais nag lay xew ca combat ba moom wala la dal ñee day dal Papa loolu dañuy bàyyi ba làmb ji jot ñu xool ba xam waaw. waaw kanam suñ jógee si sunu laam nañu dem fi nga xam ne moom mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ñi nga xamal ne ki nga xam ne mooy jamaïcain Jams produ euh, Jams production taxawal na combat France ak ki nga xam ne mooy Leketu baar di ay mbëru Gambien. Leketu Baara da nga naan Leket Baara Baara mooy fa bag bay déparé. wutali feneen fa ca des foofaay baara leket foofu la dëkk moo tax ñu naan ko leket bara moom ak France ñoom ñaar nag ci li ñu xam mooy boo demee bi day mel ni Modou Lo ak Balla Gaye ay star lañ fa waaw kon jamaïcain la ma waxoon laay waxaat rek man damay fier ci jamaïcain parce que nit la bi nga xam ne ba ñuy ànd man ak moom yàgg na du tey mu def ma magam ma def ko sama lu ne seq nañ ko wallahi la si tey su demee ba toll fii du dugg ci kob bis yu noonu yàlla di ko may mu koy réussir ba tey muy waxaale Eumeu Sène ak Bombardier ba jubóo di ca war a mën a am ak Tafa ak Balla Gaye ak Boy Niang yaakaar naa loolu fierté Babacar la kon jàmm encore une fois daal jàppal ne nag ah lu gën a jege gën a yey nag waaw te moo ñëw na ba sama kër toog ay ak sama famille sama soxna ay yoon yoon yoon kon daal Jamaïcain di ko wax ne daal li mu sumb lépp yal na ko yeggale ci alhamdulilah. kon su kon suñ ko paasee mu paas la. kan jam non jam jam la jam mu raw Messi Jamaïcain kay lu ma jam li ma paas lépp dama ko sañ a wax su ma ko waxoon léegi ñu ñëndil ma problème jam damaa paas a a paas waaye nag dañ doon paasante. waaw su ma su ma rok mi rokkaan lañ daan defante loxoy kajoor weesaloo su ma joxee ma jox waaye daal yàlla na am jàmm et puis tim yàlla na ñëpp am jàmm rek waaw. Leewtoo point net aussi nga xam ne ki nga xam ne mooy Fallou Niang taxawal na combat bébé bis mi ak papa booy jënde Babacar pour le mois de Euh, d' avril. le 28 avril. Cheikh koy nuyu di nuyu staff bi yëpp ñoom dafa mbeng ak gars yi ñoom Mor bu parcelle mbooloo parce que Fallou itam vraiment mu def mu ngi mu am am solo parce que yaakaar naa ne bébé bis mi ku ne gis na fi nga xam ne nii fa la jógee yaa ngi dégg defet bi mu am dem digganteem ak Ada Fass tey boo ko jëlee nga joxaat ko ki nga xam ne mooy papa booy jinne boo xam ne papa yàddu ko mujj a gañ gañe daaw kon Fallou ay combat enjeu lay tëgg loolu enjeu la parce que li tax mooy ku ci daanu papa booy jinne am na loo xam ne moom la bëgg te nee na loolu mu bëgg dina ko doon bébé bis mi xalaatu la daanuwaat kon daal le 28 yàlla nañ ko fekk te tal ko mais combat bu neex a neex la ak Fallou production wala Ndiaye production. Euh, Babacar Fetemi si Leewtoo point nag dañuy xamal ginnaaw ay jàmm euh, dem ki nga xam ne mooy Moustapha Gueye ak Balla Diouf ak Birahim Ndiaye nekkoon détracteur euh, CNG retrouvé nañu autour d'une table ñoom ak waa CNG yëpp duboo waxtaan si ay kaadu ba daal ñëpp joxante loxo Babacar. waaw man de la ma la doon wax du ma ci jóg coow loo gis waxtaan a koy jeexal. yaa ngi dégg waxtaan moom guerre yeeg lu mu mënta doon ci àddina su waxtaan amee rek mu jeex parce que ci wax ci laay xame yow li nga def lu tax nga def ko yow ci ngay xame man li ma def lu tax nga def ko est-ce yaa ngi dégg mais lu mu mën a doon daal mooy que ni coow yi ngay dégg yëpp ñàkk waxtaan da koy faral di lal et tamit yaakaar naa ne CNG bu ñu fi nekk di diriger làmb Tapha Gueye am na lu mu def ci làmb loo xam ne nii mëntu la fay per Birahim Ndiaye noonu keneen ak keneen noonu Balla Diouf noonu keneen ak keneen noonu kon defe naa tey tamit bu ñu waxee ci làmb warees na leen mën a déglu ñoom parce que dañ cee bokk te ku bokk ci gétt gi naan ci même olof a ko wax docteur Alioune Sarr tamit bañ ko dénkee làmb ba tey waxuma ne li mu def lépp a baax mais boo bëri na lu mu def lu baax si làmb yaa ngi dégg kon ñooñu defe naa ne bu ñu waxtaanee rek war nañu mën a déggoo li bon mooy ku ne ne fee yor sa xeer di sànni sa morom te kenn xamul ne ci sa morom ay nit bu ñu dajee mën naa am ñi nañuy waxtaan loolu dafa valable pour Sénégal pour ñun ñëpp ah nañuy faral di waxtaan dafa am solo mais yàgg ma def lii nday kumba ma def lii wala diw ma def lii te laajoo ko xamuloo nangam sangam man ngaa wax ba wax lu ëpp te gémmiñ booy xuloo nag wax lépp bis bu naaj ci wax jaam waaw te juboo sax nday booy xuloo wax wax génne li ne ci yow xuloo wax lépp lépp ba mu jeex nday kumba bu juboo jotee rek nga am jafe na ñuy sóoraale juboo waaw Babacar Leewtoo point aussi ñi nga xam a ginnaaw Mbour drapeau chef d'état bi am mois de juillet Kaolack lañ ko fas yéene defee Babacar. waaw loolu day alhamdulilah rek yàlla nañ ko fekkate tal ko parce que itam Kaolack moom moo région de Kaolack région de Fatick ah, ah ay dëkki làmb lañ kon defe naa Kaolack bu ñu leen joxee drapeau chef d'état moom yaakaar naa ne. organisation bi dina war a mën a jaar yoon ñu ciy profité di nuyu doomu Saalum Saalum yëpp fu ñu mën a ne ci àddina bi rek rawatina ku mel ne Abdou Touré di taalibe Baye Niass nekk tamit ci fans club bu Babacar maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu képp kuy Saalum Saalum. Babacar na ñu jeexale ak Leewtoo TV Leewtoo TV démb demoon nañu sa saraxu euh, ki nga xam ni mooy soxnay euh, euh, Aziz Ndiaye démb nag am na ay kàddu yoo xam ne ñu bëri def nañ ay témoignages ci micro Leewtoo TV Babacar. waaw bëri na bëri na macha allah bëri na Ndeye Kumba maanaam boo faatulee armel ya bari ay nit ñu fay dem jàppal ne ka dem baax na bu ñu koy gunge waaye bu ci gildigaale su bëri jàppal ne nga bàyyee baax maam bin tamit dem. ci li ñu gis ci image digg ku ci ay nit nit bu baax la waaye ñu mu fi bàyyi tamit muy borom këram di Aziz nit ku baax la parce que moo tax li nga gis bërki démb ba tey depuis samedi affaire bi amee ba gis ca Tiwaawoon koy denc ak boo ñëwee démb géej waaye baas ba mënoo xam fu mu toll yaa ngi dégg mbooloo mi fees dell Aziz mënul sax a toog maanaam parce que nit ñu ñëwee ci moom di ko di ko jaale yooyu nag moo tax moo tax ba daal boo ci nekkee di dund del jëm a def lu baax te di ko wax te yéene ñëpp jàmm loolu day noppal doomu aadama ñoom Balla Gaye de wax nañ jaw wax nañ suñu papa Bekkaay baa Baboy ñu fa jël démb bëri na yaa ngi dégg ay bëri na macha allah mu lay wan ne daal comme li ñëpp ñaan rek yàlla na yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeelam et puis mbaax rek am solo te lu dul baax baax ko gën yàlla nañ yàlla defal baax ku nara a bon sax yàlla na la yàlla forcé ba nga baax waaw ndax baaxay alalu yàlla te ëllëg moo ñuy sauvé ci yërmande suñu borom. Babacar am na solo nag si kàddu yooyu leen tàggoo leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu nga xam ni moom mooy euh, Khoudia Seck chéri euh, Asek du ñu ki nga xam ni mooy euh, Abdou Gueye Baye Fallou Diamagal papa cité depuis États-Unis maa ngi koy nuyu nuyu ki nga xam ni mooy Jibi Bamba naan ko teranga bi aussi bëri na chéri mbay Mbaye depuis Touba maa ngi koy nuyu du nuyu ki nga xam ni mooy Aïda Diouf ak ki nga xam ni mooy Aïcha Faye yaayu Paté ñoom ñëpp ñu ngi si biir. waaw nuyu nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ah. di ko waxee rek Aïssa maa ngi koy nuyu yaay Paat di ko wax ne namm nañ ko nag. Aïssa man moom namm naa ko lool. waaw namm nañ non ñun ñëpp a ko nam du yow rek. man moom namm naa ko lool. du yow rek ñun ñëpp a ko nam Aïssa namm nañ la Moussa yaay Paate di ko nuyu di nuyu meer sugu sama goro boobu. yaay caat ak caat waaw non caat des ko sañ bañ a nuyu caatay lépp mi di nuyu fan si club Babacar bi tamit du ma leen mën a fàtte ñoom Jigé ñoom Grand Lay ñoom Cédric Pape Ndiaye ma Abdou Tall ñoom ñëpp Abdou Touré ku ci nekk ci biir ak Babacar a ngi leen nuyu Baye Sall Dieng depuis Paris David Luiz ñoom ñëpp nuyu na leen fan si club Leewtoo tamit maa ngi leen di nuyu ñoom euh, ki nga xam ne mooy Cissé Ngaar yi depuis Brésil doomu fa nekk yëpp du ma mbër yi fa nekk yi maa ngi leen di nuyu ñoom Fat Jaraku Bombardier ñoom ñëpp ñu ngi si biir di ay soppe Leewtoo di wax ko ne daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm mais di nuyu tamit ñi nga xam parce que ngay dox des fois ci mbedd mi daje ak nit nday ku ma mu ziar la taxaw maanaam waxtaan ak yow maanaam rafetlu li ngay def te loolu maanaam ñun defuñu dara lu war a tax sa loolu am mais xëy na ñoom ñoo baax son baaxu bopp kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm yàlla defal leen ko waaye ki nga xam tamit mooy Jibi Bamba dem moo la joxoon maillot Paris tey ma jox maillot Real kon moom tamit mention spéciale Jibi bàmba di ko nuyu di ko ñaanal jàmm waaye rim